sama rakku sama mag bu jigéen frère am bi mu fekk ma ci euh, si suuf si suñu appartement dafa xaw a bizarre léegi nag mu bëgg ma fiyoonee ma jël sama butéel cocaïne bi mu dóor ko ci mur bi mu daw vois mu daw am na yeneen yeneen yeneen yeneen encore sama mag sama sama tonton boo xamante moom sama yaay ñoo bokk ndeg baay sax day jël xaalis sama xeet sama yaay dafa demoon dëj benn tantam Casamance dafa day jël xaalis par exemple moom xaritam mu yàlla xaar itam na nu ma tëddee man mais jusqu'à présent il y a que il y a pas de pénétration ay doigt les doigtés tout ça mais il y avait pas de pénétration jusqu'à présent ma xëy ci benn jour euh, ma am am dama amoon benn copain boo xamante euh, Facebook la ñu xamante tout ça li mu ma dama la yónnee ay cheveux ay affaire ay détails pour ngay jaay tout ça. Mouni man, man ekon d'akor. Beni jour, matenek sekay ralj di soujouf. Voila, nyo wou ma telefon. Mouni man, se kolib inyo ou nan. Mouni e man, se pwant. Mouni yo diyo si kon, man ekon d'akor. Fèrke, ten don, ten don tjetan zan ben harit. De kondo, don tjetan. Lègi, wanyo di nou nou, mouni man mank si petel adres weke kèr glasak. Maten fòf non. San ben kopi mouni man et moun mouno gounge. Ten mayok esen, maten.

tu vois, et euh, nous Jusqu'à présent, je ne pouvais rien dire parce que tellement j'étais traumatisé par ma mère que tout le temps après ça, toute ma vie, ça a été des viols, des viols, des viols à Ok, les yow euh, depuis nga année euh, euh, ans cette fois-ci ah. oui effectivement oui.

je suis marié j'ai une fille sama jëkkër xam na sama passé mais dafa amoon yenn temps yoo xam ne xam nga loolu mën na lu ñu koy waxee ci wolof un jour dama ci jékki yàlla j'ai pardon apparemment je je me parlais toute seule et j'essaye de me suicider euh, pompier ñoo ñëw jël si ma fille yóbbu ma j'ai été hospitalisé chez les fous pendant un mois là euh, loolu nu may je bois des médicaments pour des traitements euh, voilà tout dafa may naa pour me waxtaan dans yaay mais en fait, beaucoup moins, beaucoup moins sans Yai souffert. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je l'aime tellement que beaucoup beaucoup qu'on dessert le comité, ou alors qu'on dessert le Parce que bien le jour, sama rakkam bu jigéen rakkam bu góor boobu noonu violé na moom propre doomam bu mu doomam bu mu fukk di doomam tëral na propre doomam ba doomam bi diir na kenn xamul ndax kenn moo ko biiral ba xale boobu noonu benn jour dafa ñëw ñu toog ñun ñëpp mu ne sama papa yi la may def lii la may def ñëpp di ko gantu di ko naan c'est pas vrai c'est pas vrai et comme ni nga ko waxee c'est pas vrai noonu dafa ma métti ma ne leen effectivement c'est vrai mu ne sama yaay dëgg la lu mu wax ni dëgg la parce que papam lu mu ko def ma def na ma ko sama yaay amul dara lu may

publicité te ñëw. yeggal waat si mi choqué. ñaan sàkku ci waa Sénégal yëpp ñu yónnee ñaan Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke Ibnu Khadim Rasoul. ndeysaan bés ni ko tey la làq woon le 3 février. ndeysaan. dañu shahidul akbar. na yàlla yokk leeram. amiin. yàlla fay ko li mu def ci jullit. Eh amiin. te ba léegi ñu ngi continuer di ko def. wallaahi. daaraam yaa ngi fi taxaw. wallaahi sant bu baax Aliou Fahmi sëñ Mamour Mbacke ci liggéey bi ak taxawaay bu am solo. sëñ moom a defar ak junni ay junni junni yu mel ni man. wallaahi ndeysaan. walla yal na ko yàlla fay. ndeysaan. Nourou Tall suñu doom ji nan la tudd. Hmm? sama frère bi ñun doomam tey lay anniversaire Nourou Tall. ndeysaan yal na yàlla guddal fana su muqtada yal na yàlla yokk leeram amin yaa rabbal alamin bàkk bàlla la xare ci àjjana yu gën a kawe ku jëfoon sa rasul amin jàmbaar teem al mujahidul akbar amin liggéey rek siraatal mustaqim man de man fi mu ne nekk nii alaaj man de lii xew nii ndaw si da koo muñ muñ xam nga koo xamante ni nii sa bu mujj ba sax fukki at ak ñeent yeneen yi ay fukki at juróom-ñeenti at xam nga la koo ko yónnee message. Mm-hmm. Mantoulaye ne ko dañ ne dafa am benn mbokkam boo xam ne daa jëloon njiit laayam ñu ñu baal ma ci kàddu gi silibam bi ñu nekkee xale. Mm-hmm. am lu ca def. bu mm-hmm. defee nga xam ni yow moom. góor ñu noonu la def. dañuy xiir rek wutali la. nattu yàlla gis si kaw suuf moom. fi ni comme ñooñu nga xam ne alaaji boo leen sàccee dootoo sàccati. boo déggee ma ne la dootoo sàccati. waaw maanaam loo rombati. jël ko jël ñu dëkk di la dóor. maanaam li xale dootoo ko defati. voilà sa mbokk yi di ñaan lu gauche droite ñu naan lii mbaa jàmm la lii mbaa jàmm la waa kii moom nattu yàlla gii lii moom mbaa jàmm la. fekk yow alaaj ginaaru jàmbur nga romboon. wala tabletu nenu benn waay nga koy xeeb. Mhm. Romba ay veru jambour wara radio jambour bu mu tegon nga ne ko hmm lu gëna tuti tuuti sax. lu ko gëna tuti sax. am na ñoo xam ay portable yo xam jarul sax jarul sax 30000 francs. wallahi nga naan coppet sàccal nit. mu dem mu dem def def def manina. na. kaso yi do dootoo ci génn. commissariat ay brigade gendarmerie wa moy doon sa kër. bo génnee ben jour wala ñaar ngay génn dem tukka say mbokk bu ñu demulé ñaan lu ci maar di tal wallahi légui nak bu ko défé am na ko yónnee Mantoulaye message. Mhm. ni yii tamit nit ku ñuul la koy faral di def. waaye xam naa ni de bu dee loolu moom nit def na ko ko. tooñ na ko waaye ndeyam jiitam alaaji. dama foog fii lañ ko fekk. sama doom daa dee alaaji. wala sama baay daa dee. Mhm. ba tax ma jël meruk déega yépp sippi ko koo xam ne ci sama boutique bii la jóge mhm. yàq addunaam. mom andor da lay lee muy dund ne diggante ma góor ñi koy ya- hmm bo fekk na ndayam tam mi ngi koy def lo xam jarna jar na dee waaw moom ci dafa dem ba jàpp ne am luy attirer gor ñi ci mom hmm. non dafa xoolal dara attirer dafa am protection rek loolu do nga c'est vrai aussi wallahi c'est vrai aussi africain waaw moo naïf ba nga xam bàyyam bi nan ko muñal nak ala mo naïf ba nga xam lu am rek muy dañ ko def ni jël si bam def ni

vraiment. wallaahi médecin seen mbokku médecin bi alaaji. Mm-hmm. waaw. mu ne pont boo xamante ni rëy gi mu rëy bi mu ko jamee. waaw ñu yóbbu ko ci moom mu koy faj. waaw. <laughs> waa ji xaw na koo rey. defu ko pikiir pour bu ko ñawee yooyu tànk bi. noonu noonu la directement. anesthésie la ko doon xëccee di ko dindi. ah. Hmm. ndax ndax lan ndax lan nee na rek rakam bi gaañu noonu. caq bi mu doon takk koli ñu ne waa kan xale bi kan moo jël caqam bi mu ne leen diw la. ah léegi médecin boobu moo ko tekki. waaw waaw seen mbokk la moo ko tekki. waaja ko mer googu. xale bi li dajale ci mitit. souffrance sur souffrance la dund ci àddunaam bi. souffrance sur souffrance. anamu tey ñu ko koy teg. anamu tey. ma nga France de. jeex na nekk si mu ngi koy yàlla mititam jeex fii ci Sénégal. ka mu nekkal doon góor gu baax góor gu am yërmande. Ah, waaw ko mën a toppatoo. mais góor gu baax la mais taxul euh, liñ ko doon def. dañul après deuxième partie bi di nga déglu. non traumatisme bi li ñu doon def ko moom moom du gaaw a daj moom. Ah! déggoo mu moom dafa wax yëpp bili na ci dënnam bi yëpp yëpp yëpp yëpp. je dara buggul dara yëpp bili na ci dënnam bi dong ko tax a wax. yëpp na ci dënnam. xam nga xëy suba nekk ci kër di yuuxu di def ay affaire sanni say dal ba ñu yobul hôpital te traumatisme ak crise d'angoisse. waye nee nak heureusement ba bu amay jëkkeur jo xane mo koy taxaw. Mhm. Mhm. Mhm. moo koy yóbbu ci ay rendez-vous mo util ay xaritat non am na jëkkër bu amee jëkkeur ju baax mom en fait dootul ñeme fréquenté kenn. ci adina ko tax du am xarit. ki sax ni ki sax ki sax yalla sutural nako ko. alaaji kii sax yalla sutural nako ko. ba mu ba mu ñemee góor nii. góor ba waaw ba am jëkkër. di ko see xamam mais kii kii am na nu mu doon mel bu dëgërul woon dëgg dëgg mhm. fu mu gis nu niroog góor. Mhm. day daw xale bu jigéen buy wat boppam sax wala euh, garçon manqué. Mhm. day day daw day may la. wallaahi wallaahi. Ah. gars yi dañoo ñëw. waaw El waaw kooku la borom gunaas. ci loo maa a baax. Ah, Ale borom gunaas rek nga ma waaw waaw waaw Pape Ale waaw. waaw gunaas kay moom Ilaah. waaw ah. ndax Abba eh. gunaas. waaw maa soxla gunaas il faut mu jaar ci yow. Ah, waaw. waaye téema laa jege si. téema laa jege moom gunaas moom. boo ko soxlaa moom Ilaah. parce que su la ci la waa daan fa de. waaw man moom gëm ci loo nga fa de. waa Gunaas sa saara nga fa de. waaw Gunaas ah? ah kon jeex na maa ngi sa ginnaaw jeex na. Ah, jeex na jeex na moom yaa ko moom hmm, jeex na jeex na jeex na jeex na ah, jeex nekk nii instant bi kon jeex na kon garanti ko gaaw garanti ko. voilà merci beaucoup l'actualité du di wéy di wax ne rek sànq jaar nañu au niveau du rond point Foire foofu la tey amul benn tranquille tout autour du rek ñi nga xam ne ñoo bay ko du président ngeen yegg ci rond moo xaw a yéex wante nag ginnaaw rond ngeen wéy seen circulation soit rek ngeen tàll daal di centre ville wala sax ngeen jël accès bi nga xam ne mu ngi leen yóbbu du côté sortie Colobane foofu amul jafe-jafe malgré euh, donc bu dee nak da ngeen bàyyi koo sur donc l'autoroute bëgg dugg Colobane foofu la aussi xaw na yéex tuuti nank naax ngeen progressé même situation aussi pour ñi nga xam ne ñoo bàyyi koo ci côté Mat Aslam wala sax ngeen génnee ci côté caserne Samba Diéry Diallo foofu la yëpp xaw na yéex laata ngeen di war rond point bi d'autres mandarga à signaler hélas c'est sur l'autoroute pour ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Colobane feex pompier foofu la moom yéex na lool ay woto yu bëri ñoo fa nekk di am ci tukki direct daal di progressé tranquille hélas jaajëf waay aywa aywa alaaji Soumer Africom AV, formation action. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise des outils de la communication. C'est pourquoi plusieurs écoles ont mutualisé leurs forces pour créer Africom AV, formation action, une nouvelle académie de formation au métier de réalisateur, monteur graphiste, opérateur de prise de son, opérateur de prise de vue, post-production, gestion de production, JRI, art graphique. Si vous voulez maîtriser l'infographie, la 2D ou la 3D, être décorateur, designer, vous initiez la réalité virtuelle ou l'impression 3D, Africom AV Formation Action est là pour vous. Formation Action parce que Africom AV dispose de sa propre radio et de sa propre télévision entièrement dédiée à l'immersion dans un environnement alliant formation et pratique. Africom AV HLM1 Soudida derrière Excaf. Téléphone 78 604 16 16 ou le 33 831 04 19. lu ma mënti am dignité xew-xew am na de al ñëw na ndaxte mairie bu yëmbal sud day ak mairam son excellence monsieur Baragay moo daal di jagleel nag askanu gun gooke te daa nga ju rëy ju rafet lool di centre commercial moderne bi Almatoum ñu ne fan la ne xanaa gàcce mi dinatul mun a wara ca yoonu mbeddu Faas yéen waa Caaroy Gaar Caaroy Géej yëmbal Bass Mbaaw Diamaguène Sicap Mbaaw Malika benn baraaka waaw commerçant yëpp ñoo leen xool lu rafet lii nga xam ne Baara Gaye ak équipe municipale bi la ci seen lëkkaloo ak entreprise Mokaar construction SARL moo leen ko defaral méngoog jamono caméra de surveillance ay toile rivée réseau yi ñëw leen gaaw ku ci bëgg am nag lu gën a leer wooteel ci 77 425 34 95 wala 77 155 45 75 wala 77 201 25 24 wala 77 373 26 72 wala 77 926 39 59 wala 77 728 46 68 boo déggee nag ñu naan weddi gis bokku ca mooy monsieur le maire Bara Gaye ak entreprise Mokhtar construction dama ne affaire bi Bara Gaye benn fan ba juróomi fan ci weeru février bi saa yu leen jëndee lu tàmbali junni si seen rapido ñu may leen buña rapido na fekk nag ngeen jaarale ko suñu bon yu xarala yi di digital rapido ak jottali ba suñu bërëb bi ñu jagle suñu client yi ak ñu ñu lëngool ci liggéey bi di orange money wizall money wari free money e money yor post cash agri wave cash cash ecobank mobile cofina ak zulu pay bu leen xaarati def leen xaalis si seen carte rapido am 859 Le cousin qui dévore tout. La nièce, allergique à tout. Non merci, je suis allergique. L'oncle qui a des gaz. Le pote qui finit tout le Coca-Cola. Oh on en connaît tous au moins, mais les repas ne seraient pas les mêmes sans eux. Coca-Cola et repas, ensemble, c'est mieux. coronavirus est toujours là. Protégeons-nous et protégeons les autres. Portons correctement le masque. Il doit couvrir entièrement le nez et la bouche. Lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utilisons un gel hydroalcoolique. Évitons les rassemblements et les poignées de main. En cas d'apparition d'un des signes suivants, tout, mal de gorge, fièvre, fatigue anormale, il faut rester à la maison et appeler le 1919 ou le 1515 ou le 800 00 50 50. Ensemble, continuons de lutter contre le coronavirus. Ce message de sensibilité vous est offert par le programme d'appui au renforcement de l'état de droit financé par l'Union européenne. Bonjour, comment ça va et comment va la santé Faut dégainer masque am na fait dafa fekk muy masque bu EN norme UN e 14683 ngir fàggul sama bopp te aaraale askan masque docteur yu MSW Africa rek laay jëfandikoo ràññee ko ngir dabu yomb na te tënku ci ñetti ponk ba ci jiitu di der bu njëkk bi nga xam ne benn yàbbi du ko xët ñaareel bi di leen musal ci wannaasu wala yi lor bu jóge ci keneen ñetteel bi nag moo ëmb ngëneel yi ci masque bu MSW Africa du la fat te du la xasan masque MSW Africa yile dañu ko liggéey ci wàccoo ak norme EN 14 683 bu 2019 ak AC 2019 di norme yi gën a sell ci defar masque masque MSW Africa yi le nañu te sell nañu te mo gën ci musal ñu ci lor bi di Covid 19 ak yu ko MSW Africa di leen defal xéewal ci masque yi benn masque ñaari fukki dërëm dong lañu koy weccoo lu ngeen ci soxla rek am nañu ko woote leen gaaw commandé seeni masque ci numéro yi 77 411 11 15 76 637 27 18 78 591 95 22 77 553 08 51 su ngeen ñu andil leen ko ba fi ngeen ay MSW Africa ngir coronavirus. Soumer, ñun ñu ci sax suñ ko sow xam-xam boobu suñ ko sow ñu ngi koy ziar bu baax waaye ak jëwriñ Abdoulaye Diouf ñi nga xam ne nekk itam wér a wér a wér ay ay ay ay ay nitu culture ci wàllu musique gis nga tey la la Oum Kalsoum gi faatu woon siiw na ne Oum Kalsoum à l'âge de soixante seize ans trois février yi te doy na waar ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala xool lu ko neex mu koy def is ah, leneen yàlla xëy ci ay. na de. Mm, mm, mm, ah? Ah? métti na de. ah waaye yow li ndaw si wala. Mm-hmm. waaw waaw waaw waaw. Hmm? dañuy yëgaleeg moom. ati su yow nga ne maanaam bëgg nga ko wax mais da nga bëggul sa yaay euh, métti lu ko parce que maanaam da nga ko bëgg ba nga xamante ne ni bëggoo dara daal loo xamante ne da koy naqari quoi. dara dara ci kaw suuf.

mu ngi fëy. ok mais euh, actuellement nii yow bi nga demee ba léegi ñëwoo Sénégal. ah kay ñëw naa. ok da ngay ñëw mais boo ñëwee léegi eh, ñi nga xamante ne nii yaa ngi doon dund ak ñoom loolu da leen jéema jéem a quoi parce que boo leen gisee sa xel day dem ci la lañ la doon def bi nga nekkee xale. pourtant nag yàlla bu ñu kenn kii man en premier ku ma njëkkoon déglu bu ma nekkoon xale kooku fi saatuma ko kooku dégg que euh, ben ratam dal mo musul magam mo musul ñëw neen ñu léegi day naan sang rafet yooyu non en fait nous la def lu métti ils ont eu quelque chose muy kooku noonu mu sama rakku yaay sama rakku pap bi da rakk dafa amoo liggéey bu baax dàq nañ ko mooy nit di naan sàngara keneen ki euh, borom ku doon liggéey aéroport tamit la même chose dafa ñëw suñu kër du ma xaw ma sax nan la def ba xam suñu kër loolu ma jaaxal ba tey may wax yow ni dafa ñëw suñu kër léegi bëgguma sama yaay xam lan moo xew mu sukk ma di ma baalu fekkee ma kese sama nekkul ci couloir bi mu sukk ma di ma baalu di ma naan naa ko baal parce que lu ma lu mu def nii dafa def jigéen yi pour ça dàq nañ ko ci liggéeyam bi dafa futti woon en fait mais man dama ko ne baal naa la et sans autant

dal après nak la ni médecin yi doon ma wax ni que dama def crise d'angoisse affaire yooyu noonu léegi même may wax ni je je suis des traitements jusqu'à ma mort en fait jusqu'à ma mort. ok ok kon actuellement nii ba léegi yaa ngi continuer di dem hôpital di ñëw sa jëkkër mu ngi lay soutenir par rapport à. bien sûr moo ma yóbbu sax rendez-vous demande chaque 15 jours je psychologue chaque 15 jours suis un psychologue un psychiatre chaque jour, jours Qu'est-ce yow lan ngay xaar ñun. wala lan nga bëgg. lan lay xaar ci lan bëgg euh, par exemple su dafa am ñoo ni situation. ñu jéem a je parce que mon erreur bu ma sama ma erreur def. aussi tamit ñi di wax ni par exemple seen euh, Seigneur, il faut qu'on nous laisse faire euh, man, Je n'oserais pas, hein, tu vois, je n'oserais pas dire ça, mais même ça, il est a le plus long de ce qu'il y a C'est là que je me bouge, c'est là que je me bouge. Voilà. D'accord, merci madame. Vous faites qu'il y dans la logique ajoutée Non, rien, merci. Allez, merci. Allez, au revoir. Tu y a Allah subhanahu wa ta'ala. Yahid Allah. Exact. kii mi ngi tudd Matar Kan nee na daa réerle benn pochette bu militaire ak carte gab BOA diggante Thiès ak croisement Cambérène képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 067 59 76. ndeysaan ñi déglu Zik FM aussi mën nañ ko jàpp ci Thiès 92 point 3 wala 94 point 6 Kaolack 95 point 4 Tamba 90 point 6 Saint-Louis 92 point 4 Ziguinchor 88 nag euh, yàggul dara di ngeen ko mën a am ci 90 point 4. góor waay góor waay waaw góor. Moussa Ndeye waaye koy bindal communiqué alaaji moom tamit directeur général RTS. waaw waaw ñu ngi koy. ñu moom la ah? moom la ah, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu Racine Talla. Ah. le directeur général RTS ñu ngi lay nuyu. waaye itam ñu ngi maa ngi lay communiquer maa ngi lay wër. <laughs> communiquer. dama koy wër ah, comme ni ñu communiquer ñu réer ñi. voilà ñi ñi réer ñi alaaji. Euh, euh, ku for DG bu réer ngay wax. ku for DG bu réer. bu tudd Racine Talla. mu ngi sant. Euh, waaw Racine Talla. mu nga dëkk. Géeja Géeja. waaw kay Racine Talla. ki jël ki jur doom itam dem sànni ko ci buntu kam nguur foofu. buntu kër sànni ko fa xaw a dëgg la. alaaj may ma ma daane léegi Racine Talla. dëgg la Racine Talla. waaw Racine Talla maa ngi lay maa ngi lay nuyu. waaw te ñoo ñoo ngi lay wër. <laughs> léegi day Racine Talla ndaw. waaw waaw. waaw. man ak man ak sama benn kilifa ñu ngi lay wër. waaw waaw woo na la yónnee na la message. waaw woo naa la jotuma la léegi nag ma ma communiqué ko ci rajo bi. Eh, yéen waa RTS. Eh, suñu mbokk aywa suñu xarit ba bu fa newoon xam nga ne jottali na ko directeur général bu RTS. kii nu mu tuddati El Hadj Ahmed Aïdara soxna la kii El Hadj El Hadj kii Dramé El Hadj Thierno Dramé suñu xarit bi day déglu chaque jour. waaw ak beneen beneen xale bu jigéen bi suñu xarit ba bu fa nekkoon ba tey. Aram Ndao Aram Ndao ak keneen kii def journal. ak Mbuub waaw ñooñu ñëpp. Doroy Thiam. waaw waaw Uray Thiam. Uray Thiam mi ngi déglu. Adja Uray ah, suñu suñu mag ji. waaw xaali sekk. voilà sama yaay nee na ndongo mi dëkk fii léegi te ma ko doon tudd boo ma gisalee foofu Racine Tall. Ah. xam na ko. xam na ko ah, waaw waaw waaw léegi er, er, sama mbokk sama mbokk xalpulaar yi. sama gore ñoo naan Tall. Tall Tall. ñoo naan Racine Tall. non non non ñoo naan Racine Tall. Tall kon Racine Tall. bu dee yaa ñuy dégg. non non déedéet mi ngi lay moom. mi dégg ay mbokk mi ngi lay dégg ay jege ñaalem di dégg ak ñu fi ak ay liggéeykatam moom nag waaw fu dee mi dégg na leen élage ngoon ngeen contact bu ngeen amul contact waaw moom moom moo moo moo ñu laasin koy wër sama ah, papa moo koy wër am tudd David Gomis waaw kay ah, ba léegi nii gisuñu ko mbokk ñoom mbokk ñoom Joseph la waaw ku ko gis daal na nga woote ci 77 314 99 24. Papa Thierno Dramé nee na mat na de. ah Thierno Dramé nee na mat na de. kon sa nee na ni mel na ni gis nga racine daal. Ah, ah kon jeex kon jeex. waaw Kajali nee na mën ngeen si Zik FM Kolda ci 96 point 5. nel Thierno est-ce que racine xelam nekkul ci débauchement. non non jeex na. Thierno dégg nga tontul. <laughs> moom daal. <laughs> moom day déglu di tontu. moom daal moom daal boo bëggee dégg dëgg. waaw waaw réer na daal racine réer na daal. laaj moom tam bàyyi ma wax sama livre bi. Thierno ay point la def seen buntu kër. teg kii tam ñëw ba ci buntu këram ko. ñu ngi wax calvaire moom la la la commencé calvaire moom. mooy moom gisul sax ndey ju koy torturer ndey ji da koo teg moom dem. laay yaama laay wax nga dëgg seetlu sa doom waaw mais loolu tamit alaaji mooy lan mm-hmm. baax na alors rek ay waay lii lan la saka leen Fatima bokkum ñu ngi koy nuyu chalal waaw mais mais loolu ki ko fa sànni kan la. moo jaaxal de moo jaaxal ñëpp laaj wallaahi. laa ilaaha illallaah léegi. Hmm? kon nag képp koo xam ne yaa nga Thiès Zik FM quatre vingt douze point trois la ak quatre vingt quatorze point six ca Kaolack moom euh, quatre vingt quinze point quatre. ca Tambacounda 90 point 6 ca Ndar Géej Saint-Louis du Sénégal. Mhm. Babacar Niang 92 point 4. Ziguinchor 88 point 0. Euh, Matam moom léegi mu dikk ci 90 point 4. Mhm. waaw léegi nag euh, Racine Talla maa maa ngi lay wër te te waaw maa ngi lay nuyu di la wër sama grand frère. voilà voilà woo naa la jotuma la maa ngi lay nuyu di la di la <laughs> maire wax naan nim zaat voilà dégg voilà damaa war a dem Matam alaaji dama war a dem maatam te sama demuk Matam nga mhm. mu fay ami benn mission liggéey mu fay liggéey waaw dafa dépendre ci Racine Talla et c'est dans le cadre du travail waaw mandiraaɓe sehlaaɓe mi euh, maa ngi nuyu ñëpp te ngeen dimbali ma ci Racine Talla bu dee yéen a koy dégg ngeen hmm. ami dafa war a dem ci maatam jàpp Ourossogui waaw ngeen dimbali ko bu dee ñu ngi may dégg jàppale ma ndax damay dem foofu noonu ci sama fréquence bi nga xam ne nag vraiment ah ñëpp dégg nañ ko léegi Matam bientôt. bientôt quatre vingt dix point quatre. waaw kay quatre vingt dix point ma war a dem foofu ci mission. kon Racine Talla yow yaa am fi bàyyi directeur général bi RTS. waaw kay. léegi eh, Alaaji. eh bokk Racine Talla bi daañu ñu ko eh. di ñawlu teer bi ñaw. ñu ko lokk bi lokk ndey jooju na gudd. boo ko jàmm ñu dem ci bi day takk monta <laughs> pour mu feeñ. voilà. ah li nga xëy Racine Tall damay mu gën a nëbbu. non non non man dama koy nuyu rek. <laughs> Racine Tall lan lay nëbbu. alaaji mi laay wax de. Ah, ni hmm? hmm? hmm, euh, waaw kay Anne Marie Gomis. Anne Marie dimbali ñu. si sa directeur général waaw ndeysaan Gomis dimbali ñu Anne dimbali ñu ci Racine Talla. waa RTS yëpp nga bëgg a yónni. ci Racine ñëpp la tey Racine Talla mënuma rëcc tey bu ma woowulee fii ba 10 heures ma xam ne Racine ma bëggul jël tegal politique bi fële nag te indi wàllum liggéey bi Racine dégg nga loolu El waaw dégg nga loolu El hmm? message bi souvent. El Hadj Abdoulaye. Euh, ndaw si Abdoulaye Fofana Seck El Hadj Ndaw si. alaaji ndaw si mhm. ndaw si ndaw si dossier bi yëpp alaaji ay njàngat la ak mhm. ka koo surtout ci diggante doom mhm. ak waajuram waaye nag alaaji <laughs> am na ci nit ñoo xam ne dañoo yaakaar ne àq àq njureel kese la li olof naan waajur doj la mhm. doom nen la mhm. boo ca dalee toj toj bu dalee sa kaw nga toj mhm. toj yenn borom xam-xam yi ne ça dépend de ak ni mu amee ci kii moo la jur waaw ak lii ak lii noonu lay amee de ndax taxawaayu bis penc moom ku ci ne dana la laaj borom bi dana la laaj ana nan nga yoree woon kii waaw waaye dana ulbati ku tam laaj gone gi ana noo doxalee woon ak kii parce que yorin gi deux phases la hmm. put ni juddu ba keroog ngay dëgër. ñu ne nañ la jàngal. dégg nga nañ la yar. du ko leb leb kool. bu dee jigéen ba nga màgg. wutal la borom kër bu dee góor ba nga màgg ñu takkal la soxna. Mhm. yar gaa ngoog de. Mhm. boo ca génnee dugg beneen phase. Mhm. boo xam ne nag bal bee wala retourné waaw ñi la doon toppatoo alaadi di la jox añ réer ndékki di la jàppale ci wàllum faj gi wér gi yaram am na fooy toll nag bal ba mooy tourné de léegi nag yaay yor añ réer ndékki yor wàllum faj gi yor seen wàllu giire day def nii de te boobu nag yàlla foofu nag exigence yi gën a méttee nag fa la gën a méttee xam nga kii yàlla dañ lay yaral topp towal ndax mënagul daa jëm mag yonent bi ni inna min xaqal walidi ala waladihi an yoxsina ismahu ويعلمه الكتاب ويزوجه إذا بلغ yaay ju caaxaan na nga ko na nga ko na nga ko wutal yaay ju baax tudde ko tur bu baax bu jugee na nga ko dugal école te yar ko itam su ma tee am jëkkër mboolu mata am jabar nga jàppale ko mu sus kër ñett yooyu moom bokk na ci àq boo xam ne mais bu dee àq way jur nag moom yàlla dana ixsaanam ndax day fekk mu jógewaat ci mag nag di delluwaat ndaw mooy gën a compliqué trop doon buur nag mag buur la boobu nag da ngay rafetal rek rafetal waaw rafetal ndaw si nag léegi moom la indi waaw ndaw si gis nga ndaw si fi mu daanele ndax âge ba muy dellu yow ba nga ca tollee daa am loo sañoon ta sañu ko waaw boo amee benn at taxaw ci mbedd tuur ndox sa dérange boo amee benn at nekk ci mbedd tuur dugub ça dérange déedéet dafa yaramu neen nag daf yaramu neen dérangé wul kee demaat ba mel ni waat xale ci néew ay mën-mën te sañu te def la xale yi def moo tax nag yàlla ni wa bil waalidayni ihsaanan bu kenn yéeg ni tuur ndox daf koy sonal bu kenn yéeg ni aajo ba beneen daf koy sonal bu kenn yëg ni moom bëggut a sangu ndax yaramam antanu ko bu kenn yëg ni euh, mënut a lekk ceeb bu kenn yëg ni dafa am tawatu prostate bu kenn waaw ci góor bu kenn yéeg ni moom mère bi daa am AVC mënut a dox fu ñu ko fekk na sañ sa ba ne sugg rek toog. waaw waaw. na mel ni ku dem ba ñëw. Mhm. foo ko fekk na mel ni lal waaj rek alaaji. yàlla loolu la wax de wa bil waalidayni ihsaanan. ndaw si nag moom la ndaw si nag. Ah. ndaw si nag moom la dawal. moom la dawal kay. parce que ndaw si bu toppoon ba kanam rek maara day taali. ñu jaamu si bu toppoon ba kanam la wax. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaye waaye nattu yi dal na ko. mu am yu métti nag. ay nattu bàjjo bi ay nattu bàjjo bi. yu métti. nattu yàgg na ci kaw suuf. yu métti. nattu wallaahi. waaw léegi lii. léegi lii alaaji. Hmm. nag laaj de. taxaw la laaj de. jëkkëram ji moom bu mu teggi tànkam benn yoon. jëkkër ji waaw parce que en door de ay affaire docteur yooyu. moo moo ko ci mën a génne de. waaw en dehors de affaire docteur. jëkkër ji rek ci mën a génne. kese. parce que yii bu la dalee. da ngay dem a dem a dem ba yow boo gisee koo bokkal meen wala geño sax. Mm-hmm. leen di bañ. Mm-hmm. Mm-hmm. laa ilaha illallah. cëy lii. mu ndey démb alaaj. boo matee beneen déception rek du baax ci moom. waaw loolu moo tax loolu moo tax ma ne la. jëkkër ji instant bi alaaj. damaa ragal wax ne mooy dernier rempart. maara day taali balaa maa balaa maa balaa maa balaa maa balaa maa kii balaa maa balaa balaa maa caalit waaw ñeme ñeme ma koo wax balaa ñu naan waajaa ngay caalit waaye war nañ see téye de mhm. lu mu ci téye na ko xeeb mhm. Mhm. waaw lu mu ci téye rek na ko xeeb ndax xale bu jigéen bi fi mu ne nii dafa taxaw taxawaayu tabure waaw daa cate de bu doon day bëri dañ naa def na ñetti appui ba ma xëy rek maar day taali mm, day mm. kaat ya ma tegu maar day te am na doom acca tey te am na doom mais mun na cee génn mm-hmm. waaw nay xalaat moo gën ñi moo gën ñi ko ko doon ñi def moom na xalaat nit la ñi ko doon def ay dof lañu ay malaat lañu ay noonam lañu moom na dañ koo bind pour mu baax pour muy xalaat pour muy jub pour mu denc amour ci xolam bu mu jàpp ne dañ ko doon dañ koy yàq wala ñuy abusé wu ci eh, koom Mm-hmm. kon du dese lu nit di jariñoo ci moom. am na valeur am na jëkkër am na doom na xalaat ni doom mun na gën yaay. Mm-hmm. na xalaat ni kenn du coupable nag ku dul papaam ku góor ku jigéen ak yëpp waaye bu mu ko ko jàppee. ndax tolloo wuñu xel ku nekk ak sa bàmmeel. ku nekk ak sa mm-hmm. destin. ku nekk sa kay bi ñu lay bindal. na fexe ba moom kayam ak bàmmeelam mu jiital ci lu mën a dal xelam mu fàtte alaaji amul alaaji nag alaaji gis nga alaaji nag gis nga bu ñu waxantee dëgg na alaaji euh, aw def defin ciw def defin wu ñaaw moo bokkul waaye ku nekk si biir laay mhm. laa mhm. waaw non non non ah, ah mais fii fii euh, euh, yonent yi nga xam ne ñoo dañ ah. leen a tànn <laughs> ci nit ñi ah wallaahi mais attends ñooñu xoolal ba pare bu loolu weesoo ah. bu loolu weesoo alaaji fii ay nit a fi yor ay oto nii di di di dawal nii tarkaal la nekk seen eh, stabilité guddiñ ñu toll nii di di dund normal nii. su lañ ay nit ñu leen xam expliqué woon seenu démb. waaw da nga naan mais yàlla nan la mën a def ba dogal lii ci kii. ci kii kii lu tax mu ci ba deewul. Hmm. ba tey mu ñëw am juróom benn fukki at. Hmm. wala juróom fukki at. Hmm. wala ñeent fukki at wala ñaar fukki at. wallaahi. xanaa xamoo doon am na ñoo xam ne dañuy toog fi ñu toog. gis nit mu génn télé. ñu koy xool nii ñu naan ministre nangam wala député nangam wala maire nangam wala ñu ne ñu ne allahu akbar. yàlla moo mën a dogal. kii dee barki yonent bi moom ndeyam fii. daan nañ fi toog lu ñaari fanu yàlla. yoo xam ne cin du fi tege. cin du fi tege. ñoom dañ doon xiifa xiifa xiif gis nga booy bi benn am na benn année boo xam ne sax dafa raté année bi. waaw ndax ñàkk. Mm-hmm. da xiif. Mm-hmm. seen mbokk yi seetaan leen. Mm-hmm. nit daal la ko fi fekk. Euh, defal formation lii ak waaw ci la ko fi kii fekkoon sax. après yóbbu ko France. <laughs> ñu naan diwoon fa di def formation xaw ma. ñun fii lañ toog rek bañ ne léegi euh, sabaay daal mu ngi ci wàllum intique yeeg mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. ñëw nekk fi ingénieur ñu am xool ko tey il est le ministre nangam. nga wax loolu mooy dëgg la de. Ah, ndaw si bësam bi moo indee ko nii tege. indee ko nii mais am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen. yaa xoolal gis nga bi ma tuddee juróom-benn yi. wallaahi ma tuddee juróom-benn waaw am na ñu toog seen ñu ne ndaw si nee na benn yoon liñ ko mës a pénétrer. benn yoon waaw benn yoon. xoolal chance bi waaw waaye yeneen yëpp dafa mooy. waaye mhm. te xoolal ñoom Ahmed ndeysaan ña ngay lamantewu di jàmbat ak a jooy. waaye man. dal na ma daanaka lu ëpp man mënu ma koo compter. Ah. ñii naan man sama bàyyi ma ko def. ñii naan man sama nijaay ma ko def. xam nga moom bàyyam def ko. <laughs> attention de quelque soit. donc am na ñu mu tane. am ñu mu tane ci mucc am na nañu mu tane itam ci dogalu yàlla ndax xëy na moom tey mu ngi dund amour ci diggante ma jëkkëram mu ngi dund amour ci fond de famille yàlla di ko suturaal di faji soxlaam di dimbali yaayam sant yàlla bu mu nangu kenn ébranlé ko ci mel ni dafa dund lu kenn dund ci coono ak métit na fonk yaayam na muñ mais nag dafa dafa lancé message bu am solo mm-hmm. nañu dimbale xale yi ci di leen bañ jàppale ci nëbb gi waaw ci nëbb gi mhm. hmm. parce que mës na ko yaay waaw yaay ji bëgg ba la je sais pas euh, même nit ou bien mais je ne pense pas que même Là, parce que moom nee gis na para mais benn maire benn jour taal na kat katam ba fii mhm. ñëw ne ma dafa am lu dis sama xol munuma sama càmmiñ da doon violer sama doom

man nit ku bon. nga góorgóorlu de. dafa doon gënal sama doom. ndaw si daal li mu bëggoon am na ko. waaw génne li nekk ci dënnam bi génne na ko. dañu woon mënul dee te du ko génne. nee na na fi it ne. Mm-hmm. géppiwul ndey ja. wallaay ndeysaan. deful loo xam ni yaayam dina ni ko caalit nga. wallaay ndeysaan. ndeysaan jàmbaar dëgg la. loolu. wallaay mm-hmm. waaw. dëgg la. billaahi. waaw kon nag. Mm-hmm. Euh, euh, euh, yooyu waroon koo dal kobos xol wi. ba mel ni sama saar gi nga xam ne alaaji ku leen ne un ñu ne douze ku leen def ñu fayu du ñu muñ du ñu won na baat lu leen waaye wax ñu daw fayu loolu dal ko te loolu ci sant yàlla la moom yàlla alaaji bu la nattoo fii rek dimbali la fa ca des moo tax mu ñuy tere caalit caalit dafay xaw a nuroog bokkaale waaw day xaw a nuroog fàtte yàlla subhaanahu wa taala du noonu wallaahi waaw nit nag mën na laa fexeel def la lu ne tuuma yàgg na ci kaw suuf. lool jëf ju bon yàgg na ci kaw suuf. lool lii ñu ko def nii. te kii boo ko déggee di nga xam ne li mu wax sosu ci virgule. kii xam nga nit day jàllate sax après nit ñi di am ay xel ñaar. Mm-hmm. sosu ko. Hmm? sosu ko. ci àddina mukk waaye génération amoon na fi boo xam ni euh, ku am doom ji jigéen. Hmm. Hmm. da gas ba mu xóot mu suul. allahu akbar allahu akbar kay gas ba mu xóot mu suul allahu akbar lépp jeex na tey mm-hmm. sant yàlla allahu akbar allahu akbar ah. allahu jeex na tey allahu akbar ah en tout cas daal ah gën a góorgóorlu de kéemtaan la de gën a góorgóorlu bu baax kéemtaan la kéemtaan la kéemtaan la kéemtaan muñ rek waaw muñ mu ne rek day doom métti na de. alaaji coon sekk li mu wax loolu mooy dëgg. Uh-huh. paaka wii di la rendi. Uh-huh. waaye yow ñu ci baree bari bokk la ñu ci baree bari. mbokk mbokk mbokk yaa koy daas. waaw dëgg la.